Doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf. Doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf. Doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf. Doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf. Doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf. Doen gaaf, doen gaaf, doen gaaf. nga def ça va wow. c'est comment ya, kan bon man papi laa tudd oh, yow noo iya. mais yow ya kan ba lay wax sama tur on se connaît non mais xam nga man dama la gis rek ni ngay entraîner ma lay laaj sa tur et su ma nga jox ma sa aussi merci mais mënuma la ko jox ma wax sa tur. nga xam amoo leneen looy def mais soxla woo aussi ma jàppale la ci say éturement yaa ngi xoolal c'est comme ça. c'est mën naa ko. Rima wax ma ni nga lu tax ma lay laaj sa tur du hasard wax ma ni nga tudd sa tur rek laa la laaj laajuma la leneen. tu as vu gis nga sa tur ni mu neexee man papi l'a tudd encore une fois. ok mais Aram macha allah et écoute xoolal jox ma ce numéro naa la woo ñu déggante te nii. du ma jox sama numéro inconnu doo dégg. bon d'accord, accord loolu mën naa comprendre aussi nit ku nekk ak ay choix mais mënoon nga ma ko jox nag ñuy gën a déggante man ak yow du ko yàq benn yoon. xamuma la. su ma sañoon nga jox ma ko. Binta bàyyi ngam am tan sa feebar bi yag na te metti na te li ma gis du feebaru hôpital dama xalaton nak jël la yobul ci benn village Deg na am na serigne bu baax mu na faj bu fa nek. te inshallah so fa demee di nga am tan Duma dem dama la koy yombalal dangaa bëgg ma dee dégg naa li ma médecin bi wax bu waax nee na ma sa feebar bi feebar hôpital la te comme li nga amoon yëpp def nga ko ci man bàyyi ma ma des ak yàlla suñu borom. Binta bul wax loolu kaay kaay ñëwal toog kaay toog Binta. man bëgguma nga dee sa wér-gu-yaram dong laa bëgg ñaanuma yàlla loolu mukk ci àdduna yaay sama soxna te déggal nga ma salut Pa ouais ça va ça va ça va bien merci pa, <laughs> man sama argent de poche dafa jeexoon quoi dama soxla ben deux cent ah ma sama argent de poche dafa jeex dama soxla deux cent mille affaire bu ndaw ma bëgg a régler quoi <laughs> mais ma jox la xaalis pour que pour nga dem jëndiwaat drogue mais Bachir est-ce que tu sais que tu es la déception de ma vie. ah bon. oui tu ne fais plus partie de mes projets bàyyi naa la nag nga nekk ci kër de di di parce que je suis ton père mais es sous ma yow doo bokk sama héritage dama la déshérité tu comprends voilà. ok kon pas yow deux cent mille yi ma la laaj nii doom ma ko jox de ah. jamais de <laughs> baa xam nga ni ñëppay dee bàyyi xel ci loolu nag ñëppay dee. Bachir quel est ton problème yow lan mo xew yow lan nga bëgg Mom la lay laaj ñu investir sunu France pour nga poursuivre ses études nga nekk fa di taxawal ci mbedd un clochard ma rapatrier la delo je le fi ngay am jom am rasu nek sama taw ndekete bo ñewé day gëna pire piir tuma génn ci biti ndax sama nawle ak sama non yi yow kañ ngay changer bashir ma wax ji ngay wax ni yépp daf na sonal te sax ma lu ma dal yow mi ya, ma ko teg ma bu ma jaxase jiis laa bëgg jox ma khalis damay dem dama ko soxla du ma la jox ñaari mali yow nix do ko dara lu tol ni fatal ay ne Lu tegu sa loxo ah ma dama bëggoon mu rafet rek mais yow xam nga moos su ma soxlaa xaalis xam na fi ma koy jëlee. waaye da sàcc léegi. carrément da sàcc. Efis. nii nii. ani Aram. <laughs> yan fi tey. heureusement ndax aramkat su ma ko rombee di ko nuyoo daf may xeelu walla mu bañ maa fay. je comprends pas son comportement ne na ma tol xawma luma ko def nak. man de comprends pas mako. wante nak ne ko aram xamul ne kër gi sa la Lumu la def man ne la ko def. ah jarul damay ñu ni man indi problème ay ak affaire yoy non xam nga. aram ci Moses. ne la wax Ba <laughs> ma ko rek de toute façon yow jógal sax nga dem defaru le temps presse. xaaral ma wax ak sama yaay ñu dem.

liggéey bi dafa commencé salte waaye am na koo xamante ni li mu liggéey ñaaw na démb li mu liggéey ñaaw na ci maire Kona jaaykatu mango bi nekk fii ci marché Sandaga bi te dafa am loo xamante ni dafa ñaaw suñu biir mën nañu tànc mais waruñu mën a gaañ loolu musu fi am kon du tey lañ koy jéem a commencé di ko fi def am na koo xamante ni li mu def naa ay sul xaw ma kan la nag bagages yi dañ ko war a teg ci yoon. kenn wayu kenn waxu la bul tànc mais boo tàncee bul gaañ récupérer li nga war a récupérer nga daw génn fii kuñ fi jàpp nii ñun ñooy am ay problème kon gars yi dañ ko war a mën a teg ci yoon ñu mën a def lu ñaaw loo xamante ni suñu joob day yàqu gars yi xam nañ li ñuy def de mais dañuy bàyyi ci biir di ñu ragale xel kon am na loo xamante ni waruñu ko di ko ñoddi dafa war a mën a jeex nag ki ko ciy def da koy bàyyi da koy bàyyi teg ko ci yoon parce que loolu la ñu xam. waa yow may ñu jàmm waa yow. Cuuje eh, doo dal jàmm yow doon day wax ngay am loo expliqué dalal. Eh, yow may ma ma ñëw yow doo sunu papa ay affaire de son excellence yooyu moo fi jeex man ba may bandi booba xawuma la yow gis nga job bi ni ma ko sentiree noonu laa koy defee. ok léegi Cuuje yow damay wax yow ngay jéem a texel di jema a suma kaw di ma jema a jaay ay ay tàngale wala yow wala wala man ma sibul wala ma ma comprendre. mais non la deme ah ok non la deme ay eh, naju eh, wala doon naju yow. mais don ngay naju wala doon naju. don hein? gan bul def noonu gan bul def hein? noonu bàyyil mu sadd ngay naju wala doon naju yow. doon defal nii eh, defal don doon yow eh. fils eh kaay eh bàyyil mu sadd bàyyil mu sadd eh. fils kay ni yow. xolal bu ñu sonal est-ce comprendre nga bu baax. waaye fils ceenal nii waa yow. eh xolal bul taf daf loo ah. li nga def xam nga ko bu dul di waxati da ngay ceene sa mboot nga réglé da nga baax. ñu sonal laa ma eh, eh, eh, eh yow xoolal. dun dun da ngay dof bu topp sa xol. xoolal rey la léegi nga dem bàq ya. xoolal ma dund ci jël bi du dara ci man. wala xamoo loolu yow dun dun dun. may laaj ñi fi ñu topp sa xol. laaj ma ñi fi jot a jaar. rakk la ngay dof dof la. dun gaynde bu topp sa xol. kii rakk la bàyyil mu sedd. gaynde ñun lu ñu doxee noonu bàyyil mu sedd. gaynde bu topp sa xol jàpp ci. booy wax la booy bi. waaye mu sedd yow rek la yow fés. non daal bëgg nga chaque jour yaa ngi ci mbedd mi matin midi soir lan moo tax loolu te depuis que ma constaté ngay ànd ak sa xarit bi yenn dala tuloo fanaa la te war nga xam sa papa dafa nakar deret te man bugguma am ak mom ben histoire ndax wax alal ji bima koy am mom dafa fekk ma am ko yaay dang may jox wa wala déet bala ki di ma dégg dama bëgg nga chance bi ngeen am bama tolo sen age am amuma ko kon xaalis bi waru leen ko jël di ko gaspiller di ko pasar pasaree di dem ak dikk di duy ay réservoir plein oto yi di wër ci dëkk bi loolu bëgguma ko. yaay damay jox wala joxu ma. mais dama la dinaa la expliquer. lu la laajee xaalis rek maam nijaay lu nekk nga wax ko nga la <laughs> yow da ngaa réew yow ku réew nga. man dem ma jox la. <laughs> yay fek, man yow boy bu ndaw bi sax nga jema saw gan gi tok def pat di jay tapet Len <laughs> na la ko xamal boy bi li ko wax deug la kañ len dan jobe ni lolou mom duma ko ci far te lima len beug xamal moy len gis nga gan gi kenn du ko songé non daf dafa gertaru ba taxaw eh gis nga boo bëggee nekk ak man ngay doon góor demal geetaru comme moom wàccandaayam xoolal xam nga lan la man réew ragaluma la. booy cuuc xam nga laa bëgg yow booy lan la kenn mouche t'a piqué yow ñu toog di expliquer doon taxaw di teg xamoo lu muy teg ngay tëb di acharné wu da dal ci kawam mais gaynde kii bu la faatoon da ngay ñàkk daayif coow li jeex fukki lixlaas ak benn lañ lay may ku nekk dem doo dal ba li ñuy coaché coaché ñu liggéey ko ci jàmm ak salaam ku nekk dem foofu laay tegee ak yow booy jot te connais très bien xam naa la job bu ñu mus a job teg ko ci yoon teg ko ci axe lu xew. tegal ma lan la lu waral lii booy nii nii moo ma guux booy na ma parle pas de nii nii waaye li laay waxati sa dof bi booy ay nii yaa koy jox bopp ba mu am nu muy mel ci yow ngay asarnaw ci waa ji di tàkk di jóg waa ji xoolal ci diggu màngañ ji la taxaw kilifa la du noonu nga koy songee te boo ko yàggee def noonu da lay da ngay daayef ne naa la nga xaar ñu toog togg mbir mi ba mu ñor su ñoree ñu àndandoo liquide ko coow li jeex ku nekk jël sa wàll ñu dem mais fils pour man ñun ñëpp ñoo bokkon nekk au même longueur quoi bi ma taqué da ngeen mais yeen ñëpp da ngeen a ruux. boy bàyyil ay dañoo c'est l'expérience qui fait la différence da ngay dal jàmm waxon na la ñun ñëpp dañ ko togg ba mu ñor rek nga tepp song ko te bo yagge di def la mais fils sa yow xam nga ni reñu gaayen bi arrangé wuñu quoi. mais man bu ma tëddee damay nelaw ba yandoor ndax ci moom ay gént la suma ma paree ci moom kenn doot ko wax fii si yoxal. ok yaa mais yow état bi nga nekk nii dafa gën a grave quoi. yaa ngi faju walla fajuwoo. papa. dama hmm. hmm. hmm. feebar. waaye yaa ko yokk yoon wi nga jël. boo dëppul du ma jëkk eh, eh, tamit bi yow rek laa am benn doom la ma yàlla jox te boo turne ñu ne doom jàngee teg ci lu ma neexul ah. li may dégg neexuma lii yëpp day jeex jaar-jaar la rek te jóg naa pour bàyyi ko. li nga bàyyi. promis dama koy bàyyi dama koy bàyyi instant bi loolu du priorité lii priorité mooy ndax yaa ngi faju maa ngi faju yaa ngi faju. maa ngi faju waaw maa ngi faju hôpital régional docteur Diop. docteur Diop. waaw. Mima am teen lépp loo soxla woo ma téléphone fu ma mën a nekk dinaa bàyyi li may def ma ñëw docteur Diop boobu dinaa ko seeti lu ñu mën a def pour sa wér-gu-yaram dellu siwaat si sa yaram dina ko def d'accord hmm. dëppa man bi nga dët man baaxul wax naa la li ma la wax yow comprendre rek li ma la wax dinaa ko def d'accord. baax na bàyyi ma dem bëgguma paa bi fekk ma fii bàyyi ma dem loo soxla loo soxla ngoo woo ma yow yow lay def suma kër yow lan laa la waxoo nee woon naa la bu duggati suma kër kër gi maa ko moom bu fi duggati dàq naa la sama kër mais loo fiy def mais man seet wu ma la maire bi laa seet si woon ah maire bi ngay seet si gis nga kër gi nag sama kër la maire bi moomu ko et yow dama laa renier yée naa la nee naa la bu ñëw di sama kër bëggatuma am doom bu mel ni yow doo ku baax nit ku bon nga bàyyi ma bu duggati suma kër ngir yàlla wax naa la ko mais bul faté né kër gi sama kër papa la tay suma fi génné dem fenen c'est parce que damay bañ ciow mais suma ma duma fi génn ndax sama kër papa la mère bi dafa feebar la nek ci état bu melni man dama ñëw pour taxaw ko ñëw pour jappalé ko jox ko xaalis bu mu fajo té lool la ñëw def légui yow kan nga jox xaalis bu mu fajo mère bi nga jox xaalis bu mu fajo xol taxawal fi xaar ma man bëggutuma jur ba melni yow nga na ma dangaa yow xaalis ba jox xaar président teel sa xaalis gis nga man si dignité laay dund te ci laay dee gis nga xaalis bi soxlawuma ko soxlawuma xaalisu agresseur walla xaalisu sàcc te yow loolu nga teel sa xaalis te xam la moo bëgg sama kër bu fi duggati teel. jàpp nga sa doom di def lu baax te kenn du yëg àdduna ngi noonu def lu bon wóoru nekk nga si xat-xat ñëpp daal di lay ju mooyu mun nga dof sa bopp dem lan moo la ko ca ndeke yow fi àdduna du lenn kër bu ndaw mo taxit de waruna aduna di potu ndaa def lu bax mu fay lu bax def lu bon sa xol di bax amon nga fi ngay mujjee teeloo xey di nga guddee jabal sa bop joy wet gore le wetelikul gore docteur hmm. mer bi tegal na hmm. eh, ma lepp wax na ma lepp euh lima fi indi nak tay moy dama bëggon nga wax ma mer bi lan lañu mëna def pour fajj ko lépp lu ci war nga wax ma ko man ma def ko très rapidement loolu moo ma fii nii waaw voilà pour sa pour sa kaawu yaay bi situation dafa xaw a dafa xaw a compliqué tuuti dafa xaw a compliqué bon bi résultat yi génnee xam nañu li ko dal xam nañ li ko dal mais le seul problème moom mooy que plateau médical boobu ñun ko fi. donc l'un rek moom ci solution mooy une évacuation sanitaire à l'étranger, pour que mu mën a jël ñu ko ko prise en charge loolu rek solution bi loolu rek mooy solution bi. mais bu devez rek dina faju waaw am nañ ci yaakaar. bon am naa ci yaakaar parce que ah, voilà j'ai des relations yoo foo xamante ni nii mën naa leen euh, activer bon ñu def ko comme ça affaire mais nak euh, le coût est très élevé. amul problème man légui wax ma lan la ak ñaata la bu ko défé man ma jël ko indi ko teg ko sa loxo ñu faj mère bi très rapidement parce que man lepp lu ma mën def pour mu joggé fi mu tedd moo ma gënal. Mm-hmm. wax ma ñaata la ñu jéem xol lolu voilà mais pour, pour ça il faut il faut cinq millions pour évacuation ba prise en charge beeg tout lolu dal buñ ko amé am nañ ci yaakaar. d'accord accord Codou dina ko def amul de problème de toute façon les lu ma pour def pour mère bi jóge fi mu tëdd dama koy def amul problème heureusement heureusement ba y yow jël nga mesure gravité fièvre sa yaay parce que sa papa am nañu ay entretien mais il mom jëlul jëlul mesure gravité fièvre bi chaque fois il me parle de médecine traditionnelle comme ça médecine traditionnelle c'est bon mais pour ce cas-ci c'est pas ça il faut que vous interveniez. gis nga kaw pa bi bayiko ko bu ko deglu ndax li may def nii dama koy def te duma ko ci xaar na nga xamne mbir mi man la ak yow ñoko sekk dama bëgg lepp lo ci wax wala nga koy def wax ko ak man ndax man dina lijeenti li mais bu dé nga bàyyi ko ci biir. très bien très bien je suis rassuré bàyyi ma fi say say say say coordonnées. d'accord jëlal 822 33. 19. 33 19 ok donc jëlaat leen sama carte bi pour au cas su urgence amee yooyu dina mën ma joindre. d' accord mais encore euh, du courage merci.